أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته group M-Media Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala jéggal ñu suñu rëcc-rëcc te nangoo ñu suñu jaamu yàlla ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax tey ndokkeel mbokk yépp yi nga xam ne yi ñoom lañu bokkal liggéey bu sell bii waaye néew boobu ak ziyaar bi rek nu koy teg ci loxol kilifa gi sunu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot li ñu ko mboole mbokk yi ñu bokkal liggéey bi ñu di ko ziyaare bu baax di ko ndokkeel ci weeru teddu sell wi ñu nekk muy bokk ci weeri aj yi waaw am na groupe bi xaw nañ ci gëj lool waaye comme jamono moom noonu rek lay demee yàlla moom da ngay programme yàlla moom itam def programme am te li yàlla programme rek moom mooy jàll am naa kon li fi jaanañ ci wàllu lu mel ni ay jafe-jafe yoo xam ne réew mi ngi ko doon dund ci wàllu yëngu gum doon yëngu ba tax yu baree bari taxawoon ci wàllu yu mel nii am naa ñuy ñaan rek yàlla jeexal ko te yemale ko fi te defal ñu jàmm ju sax wër réew mi yépp ak àdduna bépp defal ko julli yépp bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xam ne moom àdduna moom mook looloo ànd te leenu war rek mooy bu ñu tolloo ci lu mel noonu rek muy jafe-jafe yu mel noonu rek jullit moom lay ngànnaayam mooy ñun ñëpp rek dana war a dellu ci yàlla ñaan ko ndax ñaan moom mooy sunu ngànnaay yi nga xam ne gii mooy ngànnaay gi gën a dëgër te dafa mel ni li ëpp ci ñun jullit ñi day day mel ni daal ngànnaay googu day mel ni xamuñu ne mooy suñu ngànnaay wala boog maanaam sàggane nañ ko lool waaye daal lu mu mën a doon ci àdduna ak fin na ci nu mu mën a toll ñun jullit moom li ñu war mooy su amatee rek ñu xam ne lii am nattu la bu dikk ci suñu kaw ñu dellu ci yàlla dem jàngi alxuraanul karim jàngi ñaani mag ñu baax ñi waaye tamit ñaan yàlla subhanahu wa taala ngir loolu ñu mën cee génn mooy gën lool lu bari lool ñuy nekk di def yeneen yoo xam ne yi na day doon wàllu yàq ak di yokk fitna ak di ko gën a yaatal ak di ko gën a bari ba ay bakkan sax di ca rot te loolu lu mën na ñàkk la loo xam ne lii ñun jullit buñ doon def li ñu war a def rek te mooy dellu ci yàlla di ñaan rek yëf ya mën naa am du toll noona kon yàlla na yàlla doole defal tawfiq bi jay sina muhammad sallallahu alayhi wa sallama te dool ñoo defal jàmm bu baax a baax bi jay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kon liggéey bu sell bi nu seq rek tey nuy ñëwaat ak yéen ci fatwa bi muy tontu laaj yi am na gëñ nañ ci lool lool waaye ni ko jëriñ di wax rek mbudu ngom muy fatwa moom wax dëgg yàlla moom ay laaj rek maanaam moo koy dundal moo koy doxal bu ay laaj amut day mel ni tontu dina xaw a jafe lool kon xam naa ñuy gën a góorgóorlu rek lépp loo xam ne lu ñu lënt ci suñu diine la rek ñu jéem koo laaj laayante ca biir ñun ñëpp ñu di ci def gëstu ba ku ci nekk loo ca tanee sa morom rek nga maanaam nga mën ko caa leeral loolu moom émission fatwa moom loolu moo koy doxal waaye bu laaj amut wax dëgg yàlla day xaw a jafe lool kon tey laaj yi nu dikkal fii yi ci jiitu muy laaj jóge ci soxna Fatma Ndiaye soxna Fatma wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel mu doon soxna soo xam ne si ab royukaay la wax dëgg yàlla nekk koo xam ne kii dañuy dégg ay waxam rek ci ni muy waxee ak nim nim ni lay taxawee ñu xam ne ab jullit te xaqan la ab taalibe la waaye itam ab jaamukatab yàlla la ab royukaay la kuy soññe la wax dëgg yàlla ci wàllu jaamu kon loolu ñoo ngi ko ci ndokkeel di ko ci siyaare di ñaan yàlla subhaanahu wa taala gën ko ca dëgëral ci noonu mu ci farloo ak ni mu ko yitteele te ñuy ñaan rek mbooleem mbokki soxnaam yi nga xam ne yii ñu ngi koy dégg rek ñu jéem a roy ci moom comme noonu mu yittewoo ak jaamu yàlla di ci def yitteem yépp te it lépp loo xam ne lii lënt na ko ci rek maanaam loola moom da koy daal di laaj ngir xam nam ca war a taxawe loolu nag lu ama am solo la lu rëy rëy rëy la wax dëgg yàlla naw nañ ko ci lool lool lool waaye itam di ko ci ñaanal yàlla dolli ko ci defal tawfiix bu baax a baax ndax diine moom noonu la diine moom maanaam lépp loo xam ne lii dala lënt ci sa diine rek da nga ko war a laaj bala nga cay nekk di dem ak sam xel fekk na yaa ngi koy def mu yàq say jëf te yëgoo ko kon daal soxna si am nañu mbégte lool ci yow ci wàll googu ci yittewoo diine googu yal na ko yàlla gën a dëgëral bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon soxna si tey laajam bu njëkk mooy dane ay weyam maanaam siti da ko jàpp ba wey yi di génn deret mu dem ci docteur yaakaar naa ñu jox ko lu muy fajoo loo xam ne maanaam da koy diw ci wey yi ni mu ko waxee mel na ni dafa mel ni lu mel ni émaay la muy laaj ndax loolu muy diw ci weyam yooyu ndax dina ko mën a jàppaale wala déet waaw laaj bu am solo bu boobu mu wax noonu maanaam bu fekkee ni loolu nga xam ne lii moom lay diw ci wey yi dafa nekk loo xam ne lii dafa mel ni ab émail la maanaam mel ni peinture masalan nga xam ne day am jëmm loolu moom nga xam ne mënees na koo xoos gis ne lii kat am na jëmm ju ñu mën a jël ni téye ko su boobaa soo diwee loolu ci wey yi ba jàpp jot danga koy xoos doog a jàpp soo jàppee ba pare mën ko ci diwaat waaye nag bu fekkee ni loolu nga ciy diw day nekk loo xam ne day mel ni ab tent la maanaam mel ni encre masalan wala daa wala lu mel ni fuddal lay doon daal maanaam couleur lay doon ci baaram bi nga xam ne du doon lu ñu mën a xoos su boobaa moom soo ko ci diwee du tere di nga ci mën a jàpp waaw kon bu boobaa du yàq njàpp mi waaye daal bu doonee lu mel ni peinture masalan ni ñu ko mën a misaale nga xam ne da ci taq taqaay boo xam ne bii da nga koy xoos muy ruus ñu gis ne lii li nga ci diw la su boobaa daal moom doo ko mën a jàppaale faaw da nga koy xoos ba mu set nga doo ko mën a jàpp waaw kon daal bu dee ci wàllu googu dom noonu rek la fay demee kon ñaar yooyu bu mu ci doon rek nga xool bu dee luñ mën a xoos la lu mel ni peinture lay doon da nga koy xoos bu dee lu mel ni nag dafa taq noonu rek muy ab couleur la mel ni encre la doon doon mel ni fuddan masalan bu baax moom di nga ko mën a jàppaale du yàqu ci njàpp ma dara laajam bi ci toppaan mu ne moom it soxna si ne ne daal moom ñaari fan yi muy altine ak alxames daal da leen a tànn di leen woor saa su nekk muy laaj nag loolu lan moo def atteem loolu kon dañ ko ci naa woor googu muy woor ñaari fan yooyu muy altine ak alxames ak jaamu yàlla gu rëy rëy la jëf ju baax a baax la ju sell joo xam ne ju yàlla bëgg la waaye tamit mi ngi koy def di ci roy sina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax gis nga ne ne ñaari bés yi nga xam ne nii moom la tànn muy altine ak alxames mu di leen woor sina muhammad noonu la ko tànne wan di leen woor ñoom ñaar bi mu koy woorit biñ ko laaje dafa wax ne ñaari bés yi day muy alxames ak altine ñaari bés la yoo xam ne yii jëfi doomu aadama yi ci lañ koy gaaral yàlla di ko yëkkati di ko denc fañ ko war a denc loolu tax ma di ko woor ndax dama bëgg suñuy yëkkati sama jëf yooyu di ko yóbbu fañ koy war a denc fekk na man dama woor kon loolu itam tawfiix la joo xam ne ci yàlla dafa lay ne ko soxna si mu tànn ñaari bés yooyu di ko woor tombeek noonu la ko Seydina Muhammad doon defee kon loolu itam tawfiix ju rëy la lu ama am solo la yàlla na ko yàlla saxal te nungul ko jaamu yàlla gu sell goo nga xam ne gii moom lay def yeneen laaj yi ci topp wala beneen laaj bi Modou Ngom jawriñ moo ko fi laaj di laaj lu jëm ci wàllu tabaski waaw bu ko defee tabaski daal liñ ko ci wax muy nañu xam ne bu dee ni dañu wax lan mooy àtteeb tabaski mooy al udhiyatu sunnatun muakkadatun tabaski sunna su dëgër dëgër la ngir seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne thalaasun kutibat alayya wa hunna lakum tatawwuun wa hunna lakum tatawwuun seydina muhammad ne ñetta ngi yoo xam ne man farata la ci man dama ko war a def waaye yéen jullit ñi yéen moom ak naafila la ci yéen muy alwitru muy safaak wiitar maanaam yooyu ñu julli ak naafila la ci ñun waaye moom mënu koo bàyyi wan naxar ak rey am tabaski ci bésu tabaski ne ne sunna la ci yéen waaye man dafa maa war war akaatal fajri ak ñaari rakkaa yi nga xam ne moo ne ñu julli bala ñuy julli julli suba gi li xawlihi taala fa salli li rabbika wanxar ndax moom yàlla da ko ne na ngay julli comme naafila yooyu muy ñaari rakkay fajar yi ak wiitar jéemu doon wax ak it maanaam rey am tabaski ci bésu tabaski gi noonu la ko yàlla digalee ne ne kon loolu tax mu ne ñett yi daal man farata la ci man waaye yéen sunna la ci yéen kon atteeb tabaski daal mooy sunnatun mu akkadatun la sunna su dëgër dëgër la bu ñuy wax tabaski nag mooy bu ñu duggee ci weeru tabaski ba ca fukkeelu fan ba mooy ku ko yàlla man loo maanaam jullit bu ko yàlla man loo nga wut am xar wala aw bëy wala aw nag wala gileem nga rey ko ci bés boobu te def ko ak jaamu yàlla ginnaaw ba nga demee julli ji ñaari raakaay nga xam ne moo lañuy julli ci bés boobu mu doon sunna soo xam ne si Seydina Muhammad da ko doon def digal ñu ñu war koo def di ko ca roy tabaski nag dafa am solo lool ndax ndigal la loo xam ne lii mi ngi jóge yàlla subhanahu wa taala jaar ci ab yonente bu ñuy wax Seydina Ibrahim alayhi salaam doonoon ab xaritam Seydina Ibrahim doom jooju ko yàlla wërsëgaw leen muy Seydina Ismail yàlla da ko noonu rendi ko bi mu ko ko digalee nag moo dem nattu ci moom waaye terewut Seydina Ibrahim daa nungu digal loola wax ko doom ji doom ji moom itam nungu digal loola nga xam ne ni moo jóge ci waajuram te jóge ca yàlla mu nungu ko nungu baayam tëral ko rendi ko kon foofu la tabaski sosoo mooy cosaanal tabaski mooy ndigal lu rëy rëy loo xam ne ni ci yàlla la jóge jaar ci ab jaam boo xam ne ab yonente la ab xarit la muy rayal sa doom jooju muy Ismaila ba Ibrahima nungoo itam doom ji nungu tamit yàlla ne ko dama leen doon seetu rek doon leen nattu waaye daal di yebal Jibril jël men am xar ca ajjana ñëw jox ko Seydina Ibrahim ibri Jibril ñëw jox ko Seydina Ibrahim mu rendi xar moom mi maanaam jote ko doomu jooju kon tabaski loolu mooy cosaan gi daal ci buñ koy tënk foofu seydna muhammad nag nim daan tabaski mooy kaana yu daxi bi kafshayni saminayni azimayni amlaxayni seydna muhammad moom ñaari xar la daa tabaskee xar yoo xam ne yeg maanaam yu yu yu yu yu duuf lay doon maanaam yu suur lay doon yu réeré itam lay doon itam waaye tamit dañ doon am ay béjjén waaye tamit xar moo xam ne mi day nekk ñaari couleur nga xam ne day ñuul am ay ñuul ñuul waaye ci kaw maanaam weex weex ya ëpp daal nga xam ne day am ñuul ñuul yoo xam ne day lii féete ci kaw moom day lii weex moo cay ëpp daal ne ne ñaari tabaski yooyu su ko daa rend ci bésab tabaski nii la ko doon rende danaa wax naan bismillahi wallahu akbar allahumma an muhammadin wa ali muhammadin xar mu jëkk mi bu ko seydna muhammad daa rey day wax bismillahi wallahu akbar daal ne yow yàlla xar mii may rey nii maa ngi koy jote sama bopp ak sama waa kër suma yudd jeexul aaxara wa yaqulu bismillahi allahu akbar allahumma an muhammadin wa ummatihi mimman shahida laka bi tawxidi wa shahida lii bil balaaxi beneen xar bi ci des bu ko Seydina Muhammad doon rey da doon wax naan bismillahi allahu akbar yow yàlla xañ beneen xar bi may rayaat muy ñaareelu xar bi ba tey it maa ngi ciy jotaat sama bopp ak di ci jotaale mboolem sama xeer yu nga xam ne bii gëm nañ la nangu ne yow rek yow ay yàlla mi nga xam ne ni moom la ñu war a jaamoo waaye tamit maa ngi koy maa ngi ciy fasale jullit ñi nga xam ne ñi it seedeel nañ ma man Muhammad mii ne li nga ma yónnee yow yàlla man jotal naa leen ko kon daal noonu la si na Muhammad doon def ñaari xar la doon rey bu jëkk bi mu fasal ci boppam waaye fasal ci ak njabootam beneen bi ci desaat mu fasalaat ci boppam fasalaat ci mboolem jullit yi nga xam ne yi gëm nañ gëm nañu yàlla gëm ko topp ko kon noonu la doon tabaskee moom seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam seydina muhammad nag maanaam ku fonkoon tabaski la ndax noonu na bésëb tabaski daal bu jotee nit mënu caa def lu gën a neex yàlla maanaam ci wàllu jaamu yàlla mënu caa def loo xam ne lii lu neex yàlla la lu ko gënal rendi ca dara muy li nga xam ne moom la ñu war a rendi ci bésu bés boobu bésu tabaski boobu te mooy tuur deret dana daal tabaski moom jaamu yàlla yépp mag waaye gi ci gën a neex yàlla daal mooy nga tuur ca deret maanaam ngir jaamoo ko yàlla te noonu na yow jullit bi loolu ngay rey di ko tabaskee def ko ak jaamu yàlla kat ne ne su bis penc ba dañu indi nu mu tuddati dañu indi béjjén ya ak kawar ga ak weya ak lépp loo xam ne li daal maanaam lu bokkan ci xar mi la dañ koy indi jalal la ko yow mi ko reyan mu doon lu rëy rëy ay xewal yu baree bari yoo xam ne yii maanaam dañ la ko cay feye ca bés penc ba kon ne ne loolu ngeen di rey daal muy tuur deret ji na ngeen ci am xel mu dal te bëgg ci te xam ne xiwal gu mag a mag a mag moo leen ciy xaaree ca bés penc ba yow moomu ko defan kon ne ne na ngeen di fexe tabaski yi di rëy tey doon yu baax yoo xam ne yu mucc ci ayib lay doon ndax dem na sax ba ci ne na ngeen di rëyal seeni tabaski ndax su bés penc ba maanaam ci ngeen di war mu nekk ak yéen di leen jàllale ca bés penc ba ngir ngeen dem ca taxawaayu bés penc ba loolu itam doon na ci soññ bu baax a baax ngir li ngay tabaskee mën a baax lool mën a rëy lool ngir nga mën caawar su boobaa mu nekk sax warukaay mën laa noppal lool kon tabaski ki ko man maanaam moo ko war a def waaye ku mënul rek ku ko mënul rek maanaam tabaski wàcc na la ndax sunna la waaye tamit ki ko mën it day am ay charte yoo xam ne yii dañ koy sàkku ci moom ngir mu mën a tabaski kon kiy tabaski ab jullit la war a doon waaye ab yéefar bu tabaskee yàlla du nangu waaye tamit ku am am xel maanaam mooy war a tabaski kon ku yoru tam xelam maanaam ab daf masalan tabaski waru ko waaye tamit ki nga xam ne kii dafa dëkk ci béréb bi mu nekk doonu fa gan maanaam moom la ñuy wax man nga boo mënee tabaski nga tabaski waaye kon ku fa dëkkut doon gan tabaski googu du la war waaye tamit na nga ko man ci maanaam doo ko sàkku ci kenn waaye rek da ngay am sa xewal ak man ko dog ko mu door ko nekk sunna ci yow waaye su fekkee ni mënoo ko nag ba xam ne maanaam xañ na dem di ko laaji rek wala nga di ci sakku ndimbal ak yooyu ne ne su boobaa moom wàcc na la mën nga ko bàyyi ñu fasaale la ndax comme ni ma ko waxoon fee bu ne ni yow boroom kër gi la boo reyee benn xar man nga cee fasal sa bopp fasal ci sa njaboot gu nga xam ne gi ñoom nga njaboote ñépp waaye tamit njaboot ga ku ko ci man maanaam am tabaski danga war a mën a wut am tabaski rey ko waaye ku ko ci amut maanaam dalay wàcc ña am tabaski bu ñu reyee bu ñu la ca fasaalee yow itam mel na ni tabaski nga loolu ñuy tabaski moom itam li ñuy tabaski moom itam dafa am ay charte su ko defee ñu ñuy jàngal fiqh ne nañu tabaski daal ci jur gi nga xam ne gi moom la ñuy wax bahimatul anaam yi ci lañu war a tabaskee bahimatul anaam yi nag mooy giléem ak nag ak xar ak bëy maanaam yii mooy bahimatul anaam ci yii lañu war a tabaskee bu ko defee yii mu wax nii bu dee ni giléem la bu dee góor baax na bu dee jigéen la bu dee ni aw nag la it bu dee góor la baax na bu dee jigéen baax la bu dee bëy wala xar bu dee góor la baax na bu dee jigéen itam baax na su ko defee bu ci nekk nag day am ay at yoo xam ne yi moom lay am doog a mën a doonam tabaski wala ay ay weer su ko defee ne ne bu fekkee ni giléem moom ngay tabaskee giléem dafa war a am juróomi at doog a mën a tabaski maanaam giléem gu am juróomi at moo mën a tabaski waaye bu fekkee ni aw nag moom ngay tabaskee nag wu am ñaari at moo mën a tabaski waaye bu fekkee ni aw bëy moom ngay bëgg a tabaskee bëy wu am am at moo mën a tabaski waaye bu dee am xar la xar moo xam ne mi dafa am juróom benn at moom itam moo mën a tabaski kon daal yooyu tamit jar nañu sàmm ko ci kuy tabaski yii boo ci tabaskee nga xool loolu nga xam ne lii moom la war a am ci ay at wala ay weer lijjanti ko ba mu mat ko nga dog koo jël di ko tabaskee ndax boo ci tabaskee te mu jiyoog lee ñu ci wax ci ay at wala ay weer rek maanaam mën naa am dina wàññi ca yool ba dara la nga ca war a na amee waaye tabaskiit war na li ñuy tabaskee war nañ ca sàmm mucc ci ayib yi nga xam ne yii moom la ñuy bëgg a wax muy al awru al maridu al araju al hazalu al ama al asalaamatu min jamii al uyub dégg nga ne nag li ngay tabaskee moo xam giléem la wala nag la wala bëy la wala am xar la dafa war a mucc ci ayib yi muy wax ni muy al awru maanaam waruñoo patt maanaam yooyu mu wax bu ci patt du mën a tabaski waaye almaridu bu ci feebar ba ñu xam ne bii dafa feebar feebar bi ràññu ko ci moom lool ci jur googu su boobaa du mën a tabaski waaye itam bu ci làgg itam nga xam ne dafa làgg ba daanaka du mën a dox dem di wët di fori ci àll ba su boobaa boobu itam du mën a tabaski waaye itam bu yooyee ba xam ne ba lii ku ko xool maanaam nga xam ne amul graisse yooyu ngokk su boobaa itam du mën a tabaski kon it am tabaski it jar na ku koy wut nga xool ba bépp ayib boo xam ne bii daal maanaam da koo am bu ca nekkee nga mën koo xam moytu ko ba bañ a jël booba di ko tabaskee bu ko defee ayib yi muy wax nii lu mel ni bu ñu daggan genn ba masalan du baax wala ñu xar nopp ba mu jeex wala ñu dagg nopp ba wala benn ci ñoom béjjënam damm di nàcc te deret ji jeexagut feragut su boobaa du mën a tabaski kon daal tabaski ku koy wut war nga ko gëstu seet ko bu baax a baax ba mu mucc ci ay bi yëpp ya nga xam ne yii day tax soo ko tabaskee du baax wala su baaxee day wàññi yool ba ndax na ne inna laaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban yàlla moom dafa teey te bëggut leen lu lu tey tey lu baax rek la bëgg kon daal lii ak tënk la ci wàllu tabaski ak yi nga xam ne moo ci aju ñu war ko mën a jàngatal bu baax a baax ba góorgóorlu ci ndax ak jaamu yàlla la te ak jaamu yàlla moom lu mu gën a sell rek ci la gënee yal na yàlla doole defal tawfiq di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin